alhamdulillah ñu ngi sant ki yeyoo ñu sant ko alhamdulillah ñu ngi sant ki nga xam ne tànn na ñenn ci ay jaamam mu def leen ay yonant ñuy ñëw di bégal ñi nangul borom bi subhaanahu wa taala nangul yonant yi ñuy xupp di ŋàññ këpp ku bañal borom bi subhaanahu wa taala mbaa kuy dummóoyu yonant yi borom boobu day sàmm na yonant yi ci lépp lu ñaaw ak lu bon yonentu yooyu ñoo gën ci jaam yi raw leen ci xam-xam raw leen ci jaamu yàlla raw leen ci maandu raw leen ci farlu sax dàkk ci ndigalu borom bi subhaanahu wa taala ak sori terek borom bi subhaanahu wa taala ñu ngi feddali suñu ngëm ne borom bi subhaanahu wa taala moom dong moo yeyoo ñu jaamu ko yaakaar ko wóolu ko wékku ci moom bàyyee ko suñuy mbir moom day mbiram wéetee na ko bokk ca kenn xaaru ca kenn ñu ngi koy seedeel ne ki mu tànn moom ba mu doy ko kooku doy nañu mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wàccee ci moom alquranul karim doy nañu gëm nañu ko wóolu nañu ko bëgg nañu ko te dinañu wammatu gànnaawam di def ab ndigalam di sori ab tereem mbokk jullit yi ñu ngi leen di dénk ragal yàlla ak topp yàlla ak gëm ay yonantam yonant yooyu dey ñu baax lañu ñu jub lañu ñu laab lañu ñu sori ab ñaawteef lañu te ñoo gën ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla yi ci ñoom lañuy jubee ci ñoom lañuy jàngee santaane bi yàlla ak ndigalug yàlla ak tereg yàlla te ñoom lañu yàlla royloo borom bi subhaanahu wa taala mu ne ñu yonentu yooyee seen diggante sax gënalante naa leen yonent yi seen diggante balaa ñuy dem ci ñeneen nit ñi mu ne gënale naa leen am na ci ñoom ñoo xam ne wax na ak ñoom ma laaj leen ñu tontu am na ci ñoom ñoo xam ne yëkkatil naa leen ay daraja yu kowe kii nga xam ne Isa bnu Maryam jox naa ko ay kéemtaan boole naa ko jibril mu koy jubbanti di gàgganti mbokk jullit yi ñun dey suñu pas-pas ci ñi yàlla yónni ñu nekk ay yonent ñun daal lañu fas mooy ñoom yàlla sàmm na leen tere na leen du ñu def lu ñaaw du ci wax du ci jëf maasumuun ñoom du ñu mooy yàlla ndaxte borom bee leen ko baaxee buñ ca jëmee dina leen wax déedéet bul waxati loolu bul defati lii bul demati fii waxal lii melal nii ñooñu yàlla moo leen sàmm di leen contrôler loolu mooy suñu pas-pas ci yonent yi te yonent yooyu ci njubug yàlla la ñu ne lépp lu yàlla tere duñu ko jege yonentu yooyu ñooy jot li di jëlee ci yàlla di ñu waxal la yàlla xaraamal ñoo koy njëkk a xam njëkk koo moytu la mu farataal ci ñoom lay tàmbalee ñu njëkk koo xam njëkk koo jëfee kon nag ñooñu di jëlee ci yàlla di ñu nettali war na kon ci bépp jaam bu gëm yàlla bépp jaam bu gëm yàlla war na ci moom yonentu yooyu lu ñu wax yépp mu gëm ko te da leen di topp te da leen di bëgg sopp leen te ku wax ci ñoom lu waxuwul dañuy jóg taxaw weddi ko képp ku gëm yàlla nii laay mel lu yonentu wax rekk dañu waa naan dëkk la lu mu digle dañ koy jëfee lu mu tere dañ koy sori waaye bal dañuy sopp yonent ya ba gënale leen ci seen bopp ak ci seeni njaboot ak ku mu mën a ne waaye képp ku leen wax dara it dinañ taxaw ñu ne yaa sikk yaa bon yaa yées yaa torox ndaxte képp ku leen wax lu ñaaw rek wax ju ñaaw jooju tegtal la tegtal la ca ka wax wax ja ne kàccoor la ne kooku génn na topp ne kooku ku bon la ku yées la ku torox la te bu tuubul yawma alqiyaama sa yalqa jazaahu bu tuubul yawma alqiyaama dina dajeeg peyooram te kooku jëf ji mu def kuy sikkal ay yonant kooku yahuud yi la toppandoo kooku jikko i yahuud la yore doxalinu i yahuud ak bokkaalekat loolu la yore ndax ñii rek lañu nettali ne dañuy sikkal ay yonant dañuy tuumaal ay yonant te borom bi subhaanahu wa taala nettali ñu ko lu bon lu ñaaw lu ne borom bi subhaanahu wa taala nettali nañu ne al yahuud al mushrikuun teg nañ ko ci derub yonent yi te buñ ko mos a teg rek borom bi teggi ko mu ne déedéet lii amul borom bi subhanahu wa taala leeralal na pas-pas boobu nga xam ne yahud yi ak bokkaalekat yi am nañu ko ci yonent yi yàlla yi borom bi nettali ñu mu ne ñoom day mooy ñi nga xam ne bu yonent yi ñëwee dañ leen di wax ne ñun dañu fasante kóllëre ak suñu borom ñun duñu gëm benn yonant bi mu indi ñu kéemtaan yu leer te bokk na ci kéemtaan yooyu dañuy génne lu ñuy jaamoo yàlla teg ko ne lii ñu wax daal bu ci borom bi d'accordee na yónni safara mu ñëw lakk li ñu teg mu ne ñun feeg loolu amul duñu gëm ab ab yonant borom bi ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax leen ni waaye ay yonent ñëwoon na ci yéen balaa man muhammad am na yonent yu ñëw ci yéen indi leen lu leer naññ ak li ngeen laaj li ngeen laaj nii ay yonent jaar na fi ngeen wax loolu yonent yi ñu indi leen ko ba ngeen gis mu leer naññ ci seen kanam kon man muhammad maa ngi leen di laaj bu dee li ngeen wax dëgg la ci yéen fa li ma qataltumuhum kon lu tax ngeen rey yonent yooyu li ngeen wax yonent yi leeralal nañ leen ko li ngeen laaj yépp def nañ ko indi ngeen xurbaan safara ñëw na lakk na ko gëmu leen ngeen rey yonent yooyu kon yéen seen pas-pas moo baaxul waaye bu fekkoon ne dëggu ngeen wax jii du ngeen ko wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaxte waxoon ngeen ko yonent yi ko jiitu woon yahud yooyu ak bokkaalekat yi tuumal nañu daawud ci njaaloo yonentu yàlla daawud tuumal nañu ko njaalo doomam ba suleymaan tuumal nañu ko njabarkat la lii borom bi subhaanahu wa taala moo ñu ko nettali te lii gis nañ ko ci téere yahud yi gis nañ ko ci israiliyaat yi ba léegi jamono ñëw ab jullit ñemee taxaw di wax loolu di tuumal ab yonentu mbon di tuumal ab yonentu njaalo mbokk yi nañu nañu nañu taxawaat seetlu nañu settantalaat li ñu fas lan la fi ñu jëm fan la ndaxte lii amoon na borom bi subhaanahu wa taala bañ ko waxee mu ne waxuñu dëgg de suleymaan du yéeféer suleymaan li ngeen wax na njabarkat la du dëgg de daawuda moomu ngeen di wax li ngeen di wax fen ngeen de ndaxte daawuda yàlla jox na ko baat bu neex ba bu yëkkatee di jàng zabuur doj yeeg njanaaw yeeg lépp day bàyyi la ñuy def àndadoo ak daawud yu sabbih na moo tax abu muusa al ashari ba mu jàngee alquran mu neex lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko anta utiita mizmaran min mazamiri ali daawud mu ne ko yow yàlla jox na la baat bu neex comme daawud ñaata ay mbir yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala jagleel na ko daawud wa alanna lahu lhadid daawud buy def dara weñ aajowul tàngal day jël weñ bi lem ko na mu ko bëgga nu mu ko neexee lay lemee weñ bi weñ bi buy bënn baaromam nii mu am ab tur parce que mu ngi koy jàngal naka la ñuy defee luy aar nit ci xeex lii yëpp borom bi tabaraka wa taala jagleel na ko daawuud benn waay ñëw fii naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suleymaan borom bi subhanahu wa taala mu ne déedéet de seytaane yi moo xam ay nit la moo xam ay jinne la ñooy def caay-caay googu wattaba'u ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا mu ne dañu toppandoo rek caaxaankat yi seytaanekat yi njabarkat yi ñooy jax-jaxal waaye Suleymaan mësul jëm ci njabar déedéet ay seytaane la ñu topp ñuy jàngal nit ñi njabar te seytaane yooyu maandu nañu ba képp ku ñëw ñu ne ko bul jàng de innama nahnu fitna ñun dañ lay fitnaal de fala takfur bul jàng bul jàng njabar waaye lan la yàlla wax fa yataallamuuna minhuma maa yufarriquuna bayna almari wa zawji teewul ñoom dañuy jàng nu ñuy tasee sëy la ilaha illallah borom bi ne dañuy lànk di jàng nu ñuy tasee sëy ba léegi ci jamono am na ñoo xam ne dañuy wax ne yore nañu xaatamu Suleymaan Suleymaan ba muy njabar xaatam yam doon def am na ñuy woote woloo xaatamu suleymaan ba léegi da ngay gis ku sol jaaro jaaru njabarkat bi ñu ne la xaatamu suleymaan ba léegi da nga koy gis ci nit ñi ponkalum jaaro ñu sol ko fii jaaroob xaalis am lu mu ci bind xaatamu suleymaan lañ ko tuddee subhanallah la hawla wala quwata illa billah borom bi weddi na ko borom bi ne uuhu loolu dara nekku ci amul du dëgg ñoom yahud yeeg musrikuuna yi tuumaal nañu Muusa Muusa dañ koo tuumaal ñu ne Muusa boo gisee mu am kersa boo gisee nangam boo gisee nangam dafa xuuxaan la hawla wala quwwata illa billah fa abarraahu llah min yàlla ne fen nañu de waaye gannaaw fen nañu nag yéen jullit yi laa waxal yaa ayuha alladina amanu wala takunu kalladina aazaw Muusa fa abarraahu llahu mimma qaalu yéen ñi gëm yàlla laa wax de mu ne bu leen mel ñiy tuumal yonent yi de déedéet rawatina ñi tuumal Muusa te yàlla weddi ko yow ki gëm yàlla bul mel noonu abadan bu ko mel de yonent boo ko tuumalee lu desati ci diine bi lan moo desati ci gëm yàlla lu desati bu fekkee kiy jëlee ca yàlla indil la kooku ngay wax ne njaalokat la kooku ngay wax ne njabarkat la kon loo soxla yow yow lan nga loo gëm loo soxla foo jëm foo jëmee nit ñi borom bi subhanahu wa taala wax na seetlu leen de maa lakum kayfa tahkumuun yéen ni ngeen di àttee ak ni ngeen di xelaatee lan la kon nañu bàyyi xel seetaat seetantal tuumaal nañu yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaatamul anbiyaai wa rusul tuumaal nañu ko teg nañu ci deram lu ne ñii ñëw ne woykat la ñii ñëw ne njabarkat la ñii ñëw ne buxaabakat la lu ne rek waaye lu ñu teg ca der ba rek borom bi weddi borom noonu yéen a bon yéen ay njaalo yéen ay njabar yéen ay buxaaba yéen a yiis moo tax du ngeen gis ku baax bëggu leen ku baax parce que da ngeen a tilim moo tax bëggu leen ku set da ngeen a dëng bëggu leen ku jub da ngeen a jàdd bëggu leen ko jëm ci borom bi subhanahu wa taala kon loolu nit ñi dal di ci bàyyi xel yii yépp am na borom bi subhanahu wa taala dal di leeral ne la ngeen wax dara amu ci fala uqsimu bi ma tubsiruuna wa ma la tubsiruun dara amu ci alquran bi wàcc wa ma huwa bi qawli shaair du woykat de wala bi qawli kaahin du njabarkat de kon lan la tanzilum min rabbil alamin mu ne lii de ci kaw asamaan la jóge ci borom bi subhanahu wa taala kon ku ko tuumal moo sikk ku mu doyut yaa yées waaye bu dul loolu lii jaar na ci jamono bu ñu jàpp ne lu bees la ahankay lu bees la gannaaw ba mu jógee ci jullit ba muy jógee léegi ci jullit yi ku ne gëm na yàlla gëm na diinal islaami gëm na alquranul karim kayfa yattahimul anbiya kayf kon kooku lu mu lu muy def rek bay tuumaal ay yonent ba muy tuumaal ay yonent mbokk yi mbir mi simplul de mbir mi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax moo tax borom bi subhaanahu wa taala dal di weddi loolu yépp mu ne dara amu ci tus mbokk jullit yi lii yépp nag yàlla waxoon nañu ko de jullit bi xam jaar ci quraan ak sunna dara du ko bett te lu ñëw rek dina xam fu muy jaar ba génn ca nu muy def ba mucc ca borom bi subhaanahu wa taala leeralal nañu loolu yépp mu ne bés bu ngeen ko déggee nag na ngeen muñ na ngeen muñ na ngeen sax ci sharia bi téye alquran ak sunna ku ko jàdd rek torox gis nga quran ak sunna looy woote woo xam-xam di woote xam-xam ba jàdd ko nar a wax leneen rek musiba ak tuuxi duna rek ngay wax parce que diine moom mooy alquran wa sunna mooy lu yàlla wax ak lu yonentam ba wax loolooy alquran boo ci buggee sof leneen rek musiba ngay wax parce que mënut a jub li jub mooy li yàlla wax li baax mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale waaye leneen la ca gannaaw sawaun min al yahud sawaun min al kafara sawaun min al mushrikin sawaun min ittibai al hawa laa yumkinu an yakuna xaqan wala sawaban fu mu mun a jóge na jóge ca yahud ya na jóge ca yéeféer ya na jóge ca bokkaalekat ya ña jóge ci ñi nga xam ne dañu topp seeni bakkan munuñ indi lu jub munuñ wax lu baax gannaaw ba ñu teggee quraan ak sunna loolu moo ñu yóbbu ci lii nga xam ne mooy diine yàlla kon borom bi subhaanahu wa taala waxoon nañu ne bu ngeen ko déggee na ngeen muñ na ngeen taqoo ak shari ak yàlla bi na ngeen roy yonenti yàlla yi na ngeen woote jëme ci dëgg ci yoon wu jub kocc wu ñu xam te yoon wu jub kocc ñaari mbir dong moo ko séq di ko jàngale alquran wa sunna faqat gént naa woon nañu ma gis naa dem naa fekkee naa kooku lan la ci borom bi subhanahu wa taala wax in hiya illa asma sammaytumuha antum wa abaaukum ma anzala allahu biha min sultaan borom bi subhanahu loolu du tus yaa koy wax rek yaa ak sa baay ak sa maam ak sa nangam danga koy wax waaye du dara indil lay indil lay li ngay wax waxal fu ko yàlla wax waxal fu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax du tus kon il faut ñu gëm ne loolu du dara lii dara mooy alquran ak sunna ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo sàmm aar ko lu mu bëgg a wax te neexul yàlla yàlla ne ko déet ñaata yoon ñaata yoon yaa ayyuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallah lu tax ñaata yoon lu tax ngay nëbb li ma la wax wax ko ci xissatu Zayd kon kooku dañ ko sàmm ak keneen ku dul moom ku doonu yonent du ñu def lu bon du ñu def lu ñaaw ñaawteef duñ ko duñ ko jege moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ñu mu ne yéen jullit yi bàyyi leen xel dinaa leen nattu dinaa leen seetlu ni ma leen di nattoo di leen seetlu dinaa jaar ci seeni alal dinaa jaar ci seen bopp waaye bàyyi leen xel de yéen ñii dangeen dégg ci ñan min alladina uutul kitaaba min qablikum wa min alladina ashraku yahuud yi da ngeen déggee ci ñoom ak bokkaalekat yi lu ngeen di déggee ci ñoom azan kathira da ngeen dégg ci ñoom lu naqaree dégg da ngeen dégg ci ñoom lu métti ci xol da ngeen koy dégg ci ñoom waaye nag wa in tasbiru wa tattaqu su ngeen muñee te ragal yàlla fa inna dalika min azmi l umur mu ne loolu bokk na ci mbir yi gën a rëy gën a jafe dëgg lu naqari nga muñ muñ ragal yàlla topp yàlla bàkk yàlla kañ ko parce que boolewu la ci loolu donc il faut nga d'accord ci loolu d'accord yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu teg ci deram yëpp borom bi dindi na ko borom bi bu ñu waxee fii ne da ngeen dégg lu naqari lu ñaaw lu bon min al yahud walladina ashraku ci yahud yi ak ñi def bokkaale walakin al an nasmauhu min al muslimin looloo gën a métti léegi dañ koy dégg ci jullit yi yahud yooyu doon wax mais léegi jullit yooyu wax yahud yooyu doon tuumaal léegi jullit yi ñooy tuumaal mbokk jullit yi nañu mooy ci suñu diine yegg si na fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ku déyee diineem day mel ni ku téye ab xal ndax da ngay dégg lu métti da ngay dégg lu naqari ki nga gëm wóolu ko bëgg ko mu gënal la sa bopp ñuy teg ci deram loo xam ne subhanallah nit ñu bon ñi sax dañ koy moytu nit ki osé di wax anam yu mel noonu kon mbokk jullit yi nañu xam ne li ñu borom bi subhanahu wa taala waxoon ñëw na kon nañu muñ nañu ragal yàlla nañu xam suñu diine nañu moy ci diine jooja ñaan borom bi subhanahu wa taala bés bu mu ñu jël see mu fekk ñu ci li mu gërëm loolu dong mooy solution bi bés bu mu ñu jël see mu fekk ñu ci li mu gëm li mu bëgg moom borom bi subhanahu wa taala moo tax toujours daf ñu koy dénk yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yéen jullit yi ragal leen yàlla tey wax lu waxu na ngeen wax lu jub na ngeen wax lu waxu ibadallah istaghfirullaha tabaraka wa taala wa sallu ala habibihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله